dafa fës ci boppu xibaar yi te ci suba si. agent lu gën a fës ci boppu xibaar yi ñaari ñaar la euh, benn bi moom moo di euh, kan la Ousmane kan mooy utu Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu 2024 euh, ñu ne kan la Bassirou Diomaye Faye moom la Ousmane Sonko tànn ni moom lay jiital ci benn vidéo boo xamante ne dañ ko enregistré woon ci mois de juillet 2023 ñu fësal ko démb mu tànn ci ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay ni moom moom mooy wéyal seen projet invité euh, beneen ponk bi nga xamante ne moom moo gën a fës di euh, Coupe d'Afrique des Nations bu Côte d'Ivoire 2023 ak Sénégal euh, Sénégal di war a tase ak Côte d'Ivoire ci huitième de finale tey jii lañ koy amal si stade Charles Konomani bu nekk Yamoussoukro 20 heures lay doon dañ ci déglu ki nga xamante ne moo di Aliou Cissé Aja ñaari ponk yi moom moo gënoon fës ci xibaar yi moo delloo la kàddu gi en attendant jërëjëf Pa mbokk yi ñoo ko déggandoo ponk yangook ñaar la boo leen taxit loolu léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu ànd ak Pa mu daal di koy faram mbokk yi jàngeen ngeen jëf ci lu ngeen ñu dalal ci seen biir kër ci suba gi ñu tàmbalee ko maa ngi doon wax sànq ci lu nga xamante mooy boppu xibaar yi ci Ousmane Sonko ak waa PASTEF euh, ñu nekkoon ex PASTEF ndax Ousmane Sonko euh, moom ki mu tànn pour mu dem ci élection présidentielle yi di wutu euh, projet bi moom moo di Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye moom la tànn ci vidéo boo xamante ne enregistré woon na ko ci juillet at mois de juillet 2023 bi ñu ko barricadé ci këram Ousmane Sonko nag def na benn discours euh, waxtaan waxtaan boo xamante ne toll na ci euh, daanaka ñeent fukki simili ak juróom euh, mu wax ci nag mbir yu bëri wax ci ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye ni moom moom la tànn ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ñu nekkoon ci parti ma nekkoon nekkoon ex Pastef loolu Ousmane Sonko moom moo ko wax wax ci tamit yi nga xamante ne moom mooy baax baax Bassirou Diomaye Faye jaar jaaram ak tamit lépp lu nga xamante xamante ne mën na ko def lu moom lu mu mën a def rek Bassirou Diomaye Faye euh, mën na ko def ak stratégie bu nga xamante ne moom la ñuy teg pour dem si élection présidentielle yi mu ne euh, nañu am euh, suñu amee ñaar ñett ba ñeenti candidat ñooñu ñëpp nañuy dooleel ki nga xamante ne moom lañ jiital muy Bassirou Diomaye Faye loolu dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen xibaar beneen xibaar bi soxal euh, tamit euh, ba léegi enquête parlementaire bu assemblée nationale ndaxte député waa PDS dañu def euh, teg benn kuréel commission d' enquête parlementaire boo xamante ne dañuy saytu nan la magistrat yi nekk conseil constitutionnel du liggéey ci mbir yu nga xamante ne moom moo di candidature yi ñoom ñu jiiñ leen mbiru guerre ñu ànd ci ñu déglu ci ki nga xamante ne mooy Babacar Fall. ci li ma jàpp mooy élection yi am man loolu laa ci loolu moo ci gën a am solo fu mu ne nii 1963 ba léegi Sénégal ñu ngi organiser élection présidentielle képp masul indi report élection présidentielle pourquoi subitement donc ñu yokkati loolu est-ce que tey intérêt benn nit parce que comme ni nga ko euh, euh, xalaatee Karim c'est vrai que même bu fekkee dafa jàpp ne euh, le fait que ñu génne ko ci compétition bi loolu injustice la du moom rek am na ñeneen ñoo xam ne aussi am na ñeneen problème ñoo xam ne génne nañ leen ci état pour contrôle yi ñuy contesté ni mbir mi demee contrôle bi ni mu demee mbiru clé beeg mbiru doublon yeeg et cetera et cetera xam nga donc moom rek moom moo ci tey euh, engage procédure bi demandé euh, commission d' enquête lan moo nekk ci gannaaw loolu fi mu ne nii bon ku mënaguñ ko xam xëy ne dina leer ci kanam. mais ak lu mu mënti doon man jàpp naa ne euh, loolu mënta tax ñu dàq élection yi. mu nekkoon Babacar Fall Moussa Mané doon ko teewlu ci téléphone Babacar Fall di expert euh, électoral di jiite kuréel gi di CRADEC ñu des rek ci lu nga xamante ne mooy commission enquête parlementaire bi nga xamante ne waa PDS euh, ñoom ñoom ñoo ko sumb ci assemblée nationale euh, Mamadou Sy Albert nag taxaw na ci loolu ne loo xamante ne lu doy waar la ay magistrats yu nekk conseil constitutionnel ñu war leen topp ci benn enquête boo xamante ne dañ leen di tuumaal mbiru Ndiou Ndiaye lan moo ci mën a tukkee Papa Banda bi moom moo lii lu nga xamante ne moom moo di Mamadou Sy Albert lu mu ci wax. ay fan képp des ci campagne électorale dàkkum élection présidentielle bu 25 février atum 2024 ñu ngi koy ruumandaat ci langu politique gu Sénégal. moo ne de ay fan ci ginnaaw meloon na ni lépp jaar na yoon li ko dalee ci parrainage bi saytuma dossier de candidature yu ni mel ba ñaar fukki candidat yu ñu tànn doon tëral seen ay pexe ngir jëm ci campagne bi ca jamono jooje la coowal dàkkum élection présidentielle daal di jipp ci média yi ci waay politique yi ak société civile. ku ne di fësal la nga jàpp ni mooy yoon ñi bëgg ñu dàkk élection présidentielle bi ci la ñuy jafandu mooy gàkk-gàkk yu ñu nemmeeku ci parrainage bi waaye itam ci fichier référentiel bu conseil constitutionnel mu di ay gàkk-gàkk yoo xam ni daal na tax ba ñu invalider ñeent fukk ak benn candidature waaye itam candidature bu coalition Karim 2024 loolee di loo xam ni bett na lool parti démocratique sénégalais mi nga xam ni dugal na ab demande ngir ñu samp ak commission d'enquête parlementaire mën a leeral ci ban anam la ñu wada loolee tax ba mbir yi gën a lëndëm ñuy samp ay laaj naan assemblée nationale ndax dana wëyal lu ni mel naka la conseil constitutionnel nara tëggaate processus électoral ginnaaw ba mu siiwalee ñaar fukki candidat yi nga xam ni ñoo war a jongante ci élection présidentielle yu ñu dëgmal su loolee amul ñàkk wóolante dana am ci campagne électorale bi la diggante assemblée nationale conseil constitutionnel waaye pouvoir exécutif bi nga xam ni moom moo a amal organisation bu élection yi la faaw rek ñu ay séparation des pouvoirs ak dogal yi nga xam ni justice jël na ko lu mu ci mën di doon faaw ñu amal ay élections yu jaar yoon yu lalu ci démocratie mu di loo xam ni war ñu ci warante benn yoon. dañuy dem ci Mbour maire bi Issa Sall activiste yi maanaam kuréel gu nga xamante ni dañuy euh, saytu ak yelleef doomu aadama ci mbuur ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi ñoom daanaka déggante benn yoon ndaxte ñi nga xamante ni ñoom ñooy activiste yi dañu jiiñ euh, ki nga xamante ni mooy euh, maire bi jiite Issa Sall jiite ko ne moom dañu ko toppee lu nga xamante ne moom dafa dóor kenn ci ñoom te loolu du dëgg du yoon loolu nag maire maire bi nga xamante ne mooy Issa Sall weddi ko Cheikh Issa Sall weddi ko ba mu set euh, li nga xamante ne ba doxu ñaxtu yu ñu defoon ngir buñ ko bëgg ko sumb euh, ngir di ko def euh, préfet bi tere na ko ñu ànd ci ak Djibi Diop Ndiaye jàmmaarloo bu am ci ñaari ndaw ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo nekk Mbour justice ak ñii ànd ak meeru Mbour ñoom activistes yi nee nañu maire bi da leen daal di bunduxatal waaye tamit indi leen ay jafe-jafe looloo waral xeex bi nga xamante ni am na ci ñaari ndaw yi. laal Bakary Diémé nag mooy laal nga la jeunesse bourgeois moo tax soo xoolee association ak mouvement yi fi daje wane ne ko procès bi nga xamante ni amoon na ci tribunal ba bi nga xamante ne nii la maire de Mbour porté na plainte ki ñuy wax Mansour Cissé mu dem fa taxawaay yu bi mu fa taxawee. moom la yàgg taxawee au niveau de Mbour le frère du maire de Mbour ñu identifier ko ak ñi mu àndal ñu ñu mën a ràññee la ci ay photo ak ay vidéo ñu agressé ko en plein jour ñëpp teg ci seen bët on fait appel au préfet de Mbour da ci war a wax procureur nag la ñuy waxal pour mu jël ay responsabilités am tontu bi nag moom xaarul ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak meeru Mbour bi nee nañu dinañ gën a taxaw temm ngir daal defendre seen leader bi rawatina nag liggéey bi nga koy xam ne ni mu ngi koy def ci biir mbuur ñun ñi ànd ak Cheikh Issa jàmm la woote jàmm la woote mais nag ñàkkuñu fay la il faut que ça soit très clair ci jàmm la woote ñun ñuy tooñ ñu noppi ñun ñuy saaga ñu noppi. c'est trop Cheikh Issa Sall ñoo ko fal ñoo koy aar. ginnaaw ñaari point de presse yi nga xamante ni ñoom def nañu ko benn sitiñ leen bëggoon a def ci kanamu mairie bi ñoom waa Mbour justice ñi ànd ak maire bi ñoom tamit ne duñ ci duñ ci dal looloo tax nag préfet daal di leen ko aaye ñuy xaarandi ba xam fan lay mbir mi di mujjee. ñetti dëkk yu bokk benn gëm-gëm benn doxalin muy Mali Burkina Faso ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy Niger ñu bokkoon ba démb ci lu nga xamante ni moom moo di CEDEAO ñoom nag démb lañ ko wax génn nañ ci CEDEAO mooy kuréel gi nga xamante ne euh, ay dëkk la euh, lu toll fu ci fukki dëkk ak juróom ñoom ñoo ko seqoon Mali ak Burkina Faso ak Niger ñoom ñëpp ñoom ñett nag génn nañ ci euh, ba set wecc nee nañu lu ñu bëgg moom mooy doxal seen mbir yi bopp euh, ñoom euh, ñi nga xamante ni wàllum kaaraange euh, seen biir dëkk da leen dab ndaxte seen dëkk yi amuñu kaaraange te noonu nee nañu li nga xamante ne ak wàllu koom ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa CEDEAO ñoom ñoo leen ko teg ñu def ko ci benn communiqué boo xamante ne jàng nañ ko ci télévision démb ñetti dëkk yooyu nag ñu wax ne Mali Burkina Faso ak Niger ñoom ay dëkk yoo xamante ne ay militaires ñoom ñoo ko jiitee Euh, bu ñu sukkandiku ci communiqué bi euh, ñoo ne ñoom dañu bëgg a doxal seen seeni dëkk euh, wax rek ne ay coup d'état moom la ñu def 2020 2022 ak 2023 ci Mali Burkina Faso ak ñi nga xamante ne ñoo di Nigéria ñu wax ci beneen xibaar bu nga xamante ni si tàggat yaram la soxal moom mooy Coupe d'Afrique des Nations Sénégal di si tase ak Côte d'Ivoire tey jii lay doon bu 20h jotee si stade Charles Korongboni bu Yamoussoukro euh, ki nga xamante ni nag euh, moom moo di Aliou Cissé yëkkati na ay kaddu di wax ne rek euh, moom am na ay plan yu mu teg ngir gën a ngir gañe match bi ñu déglu ko. aujourd'hui toll nii daal la huitième de finale bi le moom moo ñu ñor Sénégal def na ndorteel bu baax waaye nag ni ma ko faral di waxee rek jamono ji fàtte noonu jot na li am solo fi ñu nekk moom mooy jongante bi ñu jëm. nañ ko amal ci kanamu Côte d'Ivoire boo xamante ne ni bëgg na tey jubo ak publicam am na chance boo xam ne dina football seen kanam. Euh, match duma taay nag di ko wax jongante bu métti moom moo ñuy xaar ba tax na ñun dinañu def li ñu mën xam nañ ne suñu gañee dañuy toog buñ ñu dóoree nag dañuy ñibbi moo tax nag ma ne leen wute na lool ak li nga xamante ne rek moom la ñuy jot a gis ci ñu weesu juróom-ñeenti poñ yi ñu am li xew nag ci 92 tam mu ngi suñu ginnaaw naka noon tam ci li xew ci 2014 match bi wute na éliminatoire la fi ñu toll moo tax nag li ñu bëgg rek moom mooy def suñu kéem kattan jàll. passer au premier tour au prochain tour pardon. mu nekkoon Aliou Cissé keneen ki nga xamante ne moom la war a jàmbaalool tey muy coach Côte d'Ivoire di Emerse Faé Emerse Faé remplacé nga xamante ne mooy Jean-Louis ñoom mu démissionné euh, moom nag Emerse Faé nee na match bi am na ci yaakaar te euh, gëm nañ ni nañ gagné match bi ñu déglu coach sélectionneur Côte d'Ivoire Emerse Faé. la manière. anam yi ñu qualifié yaakaar naa ne loolee daf ñuy rek gën a yokk motivation li ma ko waxee sànq nag bunt bi gën a ndaw la ñu jaar waaye loolu jamono ji weesu nañ ko. on se doit on se doit de de de montrer un autre visage au peuple et pour ces raisons. yaakaar naa ne nag joueurs yi ñoom am nañ seen motivation. xam naa leen bu baax yàgg naa di liggéey ak ñoom benn at a ngi nii ak lu teg ku ci ne ci ñun xam na sa morom moo tax nag euh, yaakaar naa ne fi ma toll nii daal xam naa li ma leen war a wax xam naa naka laa war a taxawee seen kanam ngir soppi seen état d'esprit du nag loo xamante ne nii rek euh, ñun dañu ko mos a ñàkk waaye dañu ko amoon jamono ji rek mu am fu mu làqu loolu noonu yëpp nag dinañu ko génnewaat def suñu kem kàttan ngir am ndam. Mais je ne me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots, les mots ont été dits. Euh, ils savent. ce que, ce que, ce que d'eux. ci match bi nga xamante ni Sénégal da koy jongante Côte d'Ivoire tey jii euh, sénégalais yi supporters sénégalais yi ñoom kontaan nañu bu baax ngir euh, ngir dalal li nga xamante ni moom moo di match bi yàqamti ko bu baax a baax dem nañ nag seeti sénégalais yi ñoom nan lañ ci xalaat ak tamit nan lañ koy préparé ñu ànd ci ak Awa Diallo ak Omar Mbengue ci huitième de finaalu au coupe d'Afrique des nations bi ñu war a amal niki altine champion en titre bi dina laaleek kiy dalal bi les compétition muy Côte d'Ivoire di ab miraculé ci mbedd ndakaaru yi nag mu mel ni marché bi ni ki dimanche ji la ñu koy amal li ko waral mooy supporters yi ñoom sol nañu seeni maillot ba noppi ngir éliminer ñi nga xam ne nag mooy waa Côte d'Ivoire gaynde yi dañoo war a fexe dal di defaat ni ñu defee seen phase de poule. bon boo boo gisee entame bu bu yi def maanaam euh, au moins dinañ dinañ dugal plus de deux bi entame boobu ak nga xool équipe bu Côte d'Ivoire nu mu bindoo dafa nekk si ay difficulté pour man euh, ak effet bu Aliou Cissé am ak expérience joueurs yi yaakaar naa ne du doon match boo xam ne dina dina métti quoi pour joueurs yi. gaynde yi nag ñoom ñooy favori yi ci fexe wutuwaat seen bopp. match bi ñu am yaakaar rek yàlla baax na. comme dab rek incha allah. 3 rek baax na de ah. mu Gabon bi nekk fii ci Ndakaaru ñoom itam gaynde yi la ñuy supporter. bien évidemment la Côte leer ba leer mooy Côte d'Ivoire day ñëw ak esprit revanche wante mënuñoo dee ko équipe bu Sénégal bi Sénégal sax mooy favori si match bi score bi jàpp naa ni itam mën na nekk 3-1 pour Sénégal. on peut seen jeu dafa baax ndax gis nañ ne bi ñu dooree compétition bi ba tey lu rafet la ñuy football moo gën bu baax li nga xamante ne moom lañ gis ci équipe bu Côte d'Ivoire bi. Côte d'Ivoire mi nga xam ne nag wanewul xarañte ci bile kan ndax nag bi mu neer nermerloo ci kanamu Guinée équatoriale mu làbbali ko ñeenti bal ci dara Maroc moo ko dal di sauvé ngir mu qualifié ci huitième de finale yi loolee moo tax ñenn ci supporters yi ne mbir mi mun na bañ a yomb. bu leen xeebee rek Côte d'Ivoire mën na leen a dóor mais Côte d'Ivoire fi mu toll dafa soppeekuwaat beneen Côte d'Ivoire ak pro bi passé. ñu xam bu baax a baax valeur bi les places ci huitième de finale yi ñoom éléphant yi dinañu utiliser seen energie ngir rek mun a fexe indiwaat surprise fexe relancer seen taxawaay ci bile campagne continentale waaye ndax gaynde yi dinañ leen ci bàyyi match bi daal lu ci mënti am dinañu ko door bu vingt heures jotee. jërëjëf Awa Diallo ak Omar Mbengue ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo def reportage boobu euh, ci match Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu koy amal tey jii ci côte ci Abidjan enfin Yamoussoukro euh, Yamoussoukro euh, ci stade Charles ni ñu ñaanal gaynde yi ñu génn ci ak ndam dem qualifié ci quart de finale yi. Aïcha Diaby mbokk yi ñu ngi leen di sant balaa may dem ci Aïcha Diaby ñu leen sant di leen gërëm ci li ngeen doon seetaan Aïcha Diaby maa ngi lay delloo kàddu gi. jërëjëf Pa Malick di ñaanal suñu gaynde yi yàlla may leen ndam incha allah ah, jaajëfal bu baax a baax xanaa nga daal di des ak ñun rek bu ko defee ñu daal di koy wëyal ak li nga xamante ni loolee rek la tuyenikaay yi xëy fësal tey léegi lay doon mbokk yi bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi. ci mu ngoog mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di.